bisimilah barke borom Tuubaa kon mbokk internetu ñiy topp Mawahibou TV ci internet bi. kon ñëwaat nañ ba tey ni ñu leen ko waxee woon sànq ñoo ngi ci alentour jumaay Masaalikul Jinaan ji yegsi nañ fii fi nga xam ne moom mooy waañu soxna Ayda moom Seex Serigne Seex Saliou moom Serigne Saliou Mbacké muy mel ne comme ni nga ko gisee ci image yi soxna yaa ngi fi ànd ko góor yàlla yi waaye ànd ak ki nga xam ne moom moo leen jiite ci liggéey bi muy soxna Ayda ñàkkul ne dinañ ko jox ay kàddu mu yëkkati waaye laata loolu dañuy jox nga xam ne moom mooy Seex Mbay Beex bokk ci ñi nga xam ne ñoo yor kàddoom moom mu ubbil ko inshallah momit mu wax li nga xam moom la yek ci li nga xam moom moy ngan gi depuis ba fi serigne bi ñëwé démb ak tay ak suba bismillah Cheikh wa jerejeuf euh wa télé bi ma ngi leen di siaré di santat yalla bu baax di nuyu Cheikh Mouhamadou muntaha mi nga xam moy suñu buntu Serigne Touba di ñaan li mu def te Serigne Touba tax yal na lepp doon ay ngeneel di ñaan julli gi mu fi julli dimbali julli di rek tax ndax moy Serigne Touba ci kaw suuf waye ngeen ñew fo xamni nak dafa jere ñew waye di nuyu jeewriñ Alaaji Mbàkki yu fay jeewriñ borom Touba muy jeewriñ murid nek nekk gep waye di nyau siaré di len ndokkeel ñew gi ngeen ñew ci ndax defe naa ne waañ wi ngeen ñëw mooy waañu Serigne Saliou du keppaaruk sëriñ Saliou ñu ànd seeg sunu jàmbaar ji nga xam ni liggéey bi sëriñ Touba rek ko ñor lépp lu Serigne Touba woote kenn du fa kenn du fa njëkk moo fay mujj ni ko sëriñ bi santaane noonu la koy defee ba ko ñuy tekki baas yi muy soxna ay mu Serigne Saliou bi nu jàppee bis bi yëkkati na nag ñëw jébbal ko mbakki yu ñu défé né fa lay yem mu ni ko julli gi fi Serigne Touba di julli Cheikh Mouhamadou muntaha ibnu Cheikh Basir lepp lu wër jumaaji ñetti fanu ngan gi dina togg dina tal nit du fi xif nit du fi mar ba koroo ngan gi di jeex bindee suba la ngan gi lañu fanan ci inshallah rabbi altine bu nu toggee du mu defaree ndékki togg agn togg reer lan koy ñaanal mu yewé ko ndax loolu lan sakku ci ngand gi ñi nga fi gis ñep soxna ay mu Serigne saliw rek lanu andal ci liggey bi Serigne Touba bek Serigne saliw moy wa képparu Serigne saliw mom nak buntam si Serigne Touba Serigne cheikh mu Serigne saliw ci ndigal lay tënku di jëfë ndigal lu neexul Serigne bi neexuko mom mu lol dongo tax nak ñu ànd ak kon nañu ko ñaanal yalla di def yeen wa télé bi yeen ñew gi ngeen ñew si waañu soxna Ayda mu Sëriñ Saaliw léegi la fi doomi mbàkk yu fay jóge mu ni ko lépp lu war a def si ay xéewal bu noppee ñëwal jël si ko nga yóbbul say gan yi bàyyi doomi mbàkk yu fay léegi la fi jóge kon soxna su mel nii bu amee si si waa kër Sëriñ Bamba dañu ko ñaanal yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko maa baa ngi ni xéewal gi jeexul lépp luy xéewal soxna Ayda indi na ko Masalik di ñaan ñëw Cheikh Mouhamadou Mountakha lépp lu mu fi bàyyi si ay ngëneel yàlla bu ko si kenn ëppale kon du nu sori dañuy gàttal jox la rek nga interroger sa soxna si lu ma xam si ñëw Cheikh Mouhamadou taxa ndax mbég nan nag man nag dama am damaa am damaa am loo xam ne saa su ne bu ma ko tijjilee dama koy wax soxna ay mu Serigne Saliou soxna Aïda mu Serigne Saliou soxna Aïda mu Serigne Saliou waaw kay jërëjëf Cheikh mbay waaw ñu ngi sant bu baax baax ci kàddu yi comme ni ma ko waxee wax nañ ne def nañ fi ñett fan te fas yéene wuñ cee yem te boobooy ba tey tamit lépp luñ fi nekk ci seen moyens bopp la kon xam naa duñ def lu dul dañuy jàll ci soxna si moom mi nga xam ne moom moo jiite mbooloo mi soxna si ginnaaw ban la siyaaree tey tub bu baax ci tàngoor yi nga xam ne ñu ngi ni nga waxee ñun ñëpp ñoo bokk liggéeyu sëriñ bi kon xam naa li ñuy laaj rek moo yëg-yëg bi lan la ginnaaw boo fi sëriñ bi euh, ubbee jumaay Masalik ji ci lu toll ñaaraat ci ginnaaw yoon mu jàppaat ñëw ci ne daf fiy jullisee gane si waa Ndakaaru yëg-yëg bi lan la soxna si jërëjëfati serigne Touba jërëjëfati serigne Touba jërëjëfati serigne Saliou ngam ngam gi du dara ku dul beug serigne Touba ngam ngem gi du dara lu du beug njabootuk serigne Touba ngam ngam gi du dara lu dul fas yéene liggéeyal Touba ba xey faatu ngam ngam bi du dara moy kaale ñu and liguey serigne Touba liguey serigne Touba nak bo ci nekké payib serigne Touba mom da amut arrêt nak kum fay nga yëg ne fay na la te ku ko jëfal mu fay la jëf ji nak moy man-man bi la ñaan mu yok ak yalla gën ñoo xir ci beug serigne Touba bëgg sëñ Touba laa bëgg daal saa yu ma xëyee yàlla di ma ci may may gën a dooleeku waaye liggéey bi moom lu waaye gis ci man rek xamal ne ab tàmbali la waaye yëggaguma fenn. waaw jërëjëf soxna si kon xam naa kàddu yu mujj rek mooy lan la soxna si di dénk mbooloo mi xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi. ñoo am pas nangu tey dox ci ndigal tey bàyyi tere bu sëñ bi nee na weex ñu ñëpp na àndandoo na tàll bu sëñ bi nee na ñuul na àndandoo ne am pas-pas ci liggey bi am ci fulla am ci fayda te bu kenn nangu kenn kula man waaw kon xamna muy melne lolou mom moy li nga xamne mo fi nekkon ci cardu ñu jëlee fi ci wañu soxna Aida di wa keppaaru Serigne Saliou kon waaw kon xamna kon xanaa ñakul ne kon dinañ ci doli ben laaj Cheikh mbay mu leral mu wax lan mo lan moy keppaar gi. keppaar gi liko ko len rek la li soxna ci di def gis nga ñi nga fi gis euh, sellur bi dafa yaatu boo demee Tivaouane ke paruk soxna Aïda musirin Serigne Saliou nga fa nga dem Tëngéej keppaaruk soxna Aïda mu Serigne Saliou nga fa nga dugg diaspora bi keppaaruk soxna musirin mu Serigne Saliou mom néna na ku ñu baasi si sa ngoon du bayyi néna lu wër jumaaji ba si bir jumaaji lu fay boisson di ñam ah, di ay berne lepp mo koy sédélé nan ko ñaanal yalla guddal fanam ya, di ñaanal télé bi nak mu yok ndax télé bi sëñ Bamba mom kula ci wo law rek ko wër la yàlla na ko Serigne Touba gis télé bi yokk ba ko siy nekk yokk ba ko siy wax yokku directeur yi yokku ñiy filmer yëg cameraman yi yokk si barkeb Serigne Touba.